الحبيب الذي وارى المياه به وكل ذلك إراف من الله الله ربي كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله زرت الحبيب الذي كانت شريعته ما قبل نافخة من شرعة الله أسترجع الله كعبة الله وكلما هولها يا كعبة الله عليه ألف صلاة عد من ذكروا وعد من غفلوا من عابدي الله أستودع الله ربي كعبة الله وكلما عليه والآل والأصحاب قاطبة ألفا صلاة وتسليم من الله أستودع الله ربي كعبة الله وكل ما حولها لا كعبة الله آه، فتبارك الله كم comme nag mën nañoo dellu boog ci sunu nab دفنا به دنا ودان الغير خيرا وشرا يا الهي قوي دوني به دنا دنا لنباخو من جلتي خيرا او يو تم الاسلام ودان باخو الخير ينين يدل من تمو يفري شرا او اي تم المصيبه ما يا الهي يا يالا نك xaw mi yàlla nga dëgëral dooni sama doyet xanaanun yoon la wu daaji weex moom muhammad ba li fi nekk kay xanaanun yërmande la ba li fi nekk xanaanun barco la ba li fi nekk xanaanun wërsëg la ba li fi nekk xanaanun wegeel la akil xaniini yori bëgg muhammad foofu nag xaaji maa ni wa kaana badan loo teg ala xubbil xalaayi loo teg وكان بدءا على حب الخلاء إلى أن جاء في الغير روح القدس لم ينم وغطه لبلوغ الجهد قائله فاقرأ وقال له ما ذاك من نظم إذ كرر الغط مرات يقول له اقرأ باسم ربك أنت الخاتم النظم وكان يكون محمد بدءا تكم أسماء على حب الخلوة ngir sopp wéetaay luga la moo dina laa xubbil xalaay rek ila an jaa ba dikkal ruuxul qudsi jibril lam yenami te nelawumu kañ la ko dikkal fi l xeeri ci xeeru xiraa ruuxul qudsi ay ruuxul muqaddas waxatahu bas na ko li bulooxil jëhdi ba mu jotub coono xaa iloo mbir mu wax ko naan ko faqra da nga jàng waxaatox muhammad loo ñeel jibril ni ko maadaaka jëggaan yooyu may jangalo min ñu di mbokk sama aada id karal nak ba nga xamee ne baabu ma alxatta bés ga marat ay yoon fa la ko waxee yaqul mi wax nak lo ñeel ko ni ko iqra na nga jàng bismi rabbika ci turu borom sa anta yow muhammad al khatim an nuzimi ya ajim moti ràng ya iqra bismi rabbika innaka la taqra'u bi xawlika ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك ولكن اقرأ مفتتحا باسم ربك مستعينا به هو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك على الدم ومغمز الشيطان بعدما خلق فيه كما خلق في كل انسان كما في حديث القدسي خلقتك فأنا إله ثم ربيتك بالنعيم فأنا رب ثم عصيت فسترت عليك فأنا رحمن ثم تتفق بك لك فأنا رحيم ثم لا بد من جزائي فأنا ملك يوم الدين وقد النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب أنزل من السماء آه. وعملا أول ما كتب القلم في اللوح المحفوظ بسم الله الرحمن الرحيم وقال محمد فإذا كتمتم كتابا ففعلوها في أوله وخلق الله بقدرته لك وجلالته لا يذكر اسمه على شيء إلا بارك الله فيه وإن سيدنا عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البسملة فقالوا اسم الله الأعظم وما بينه وبين اسم الله الأعظم إلا كما بين سواد العين وبياضها نانكو جانغ نك سي sa pexe bu ko jàng nag ci sa pexe du caay gi nag sa melo bopp du caay gi nag nga di ko xam waaye na nga jàng mustaayina ngay sàkku dimbandikoo di jëfur yàlla wa ndax moom kat moom yàlla moo la koy xamal naka mu lay bindee naka mu génnee ci yow lépp loo xam lumb dara la ak luy way yàq ak lépp loo xam ne du dafa doomu aadama ci xadisu qudsi nag yàlla dafa ni xalaatu ko bind naa la fa ne ilahan maay sa borom su ma rabbaytuka moo tax mu ni bismi rabbika su ma rabbaytuka ma yar la man yàlla bi naami ci xéewal fa ana man rabbul maay borom bi su ma afayta nga mooy ma fa sakatu alayka musra la fa yaa rahmaan maa bëri yërmande su ma tub nga nga jéggalu fa xawatu ma jégal lakkañee la fa anta waana rahimun maay borom yërmande su ma laa budde meel jasaay te par force na ku liggéey ma fay ko fa ana malik yawmi diin sallallahu alayhi na bismillahi rahmaani rahim mooy caabi lépp loo xam ni bépp boo xam ni wàcceef la ko jëlee ko ci asamaan bismillahi rahmaani rahim mooy caabeem téere bismillahi rahmaani rahim moom la xale bëgg jëkk bind ci loxo nax foofu يا أبو محمد أخلوني بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كتبتم كتابا ففعلوها في أوله سنين في من بني تبتيري أبلو تيري بريري وخلن بس بسم بس الله الرحمن الرحيم تبابا نحكت ديفو كتب بموك كي مبين نبير غير يالا باركيال نبير ما أسوانا أفاد يكو لأي نسمون لأي محمد أسوانا أفاد نينا لأي محمد صلى الله عليه وسلم نكو بسم الله يلوم بيرم من بسم الله العظم لا بسم الله اسم الله العظم لا ci digënté bismillah ci ak bisimilah laazam mi ngi mel digënté ñuul ñuul ñuulu ak wéx wéx di ba digënté ñuul ñuul ñuulu bët ak wéx wéx ba kat neexu la xamé bismi rabbika nak na nga jàngal nag bismi rabbika su turu borom fa anta yow khatimun nuzmi iqra bismi rabbika alladhi ladi xalaq al-insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam muy nak allama xamal موم يلا وفي الآية إشارة إلى أن التعليم والتسجيل إنما هو من الله huwa من المعلمين والحافظين وقد علم آدم الأسماء فوق بتعلمها واستهلوا بإذنه وعلم داود صنعة لبوس كقوله وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلم عيسى علم الطب كما قال ويعلم الكتاب الحكمة وعلم الخضر علم الدنيا كما قال وعلمناه من الدنيا علما آه وعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وأسرار الألوهية كما قال وعلم كما لم تكن تعلم وعلم الإنسان البيان نينا لا يجوز لي الجنجل علم بالقلم علم خلق بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لأنها كان أمة أمية لا تكتب فصار إلى كتاب اعصاب القلم فتعلموا خلق القرآن بالقلم وتعلموا نبيهم محمد محمد القران تلقين qur'an talqin asah min jibitu ko jibril bo xamni nazzalo wacce nako ala qalbi bismillah li yakunu min muslimin ذلك قول تعالى وإن لك القرآن لتنزل رب واتشك من رب العالمين واتشك من بن ديك له نزل واكني بجاء القرآن روح جبريل الأمين كده كن على قلبك سقل لتكون نجرنا نك أدن نجر مجر لمنذر وبكشاج واري من المنذرين تكيش وواري نك mu wàcce ko nag bi lisaanin ci lammiñ arabiyin bi ko di arab mu bimbale ji bir wa fil ayati nag isharatun illa ana taalima wa tasila indama huwa min allahi la min al almuallimin walxaafidin képp am xam-xam wala jàpp na nga am ko ci xam-xam ci yàlla la jóge waaye saa nga xam lu ga wa al adama al asmaa kullaha yàlla xamal aadama mboolem turam yëpp wa faqoole taallumaha wa sahlu birni wa alama daawooda mo xamal ci al daawooda sanata duraay li ñu liggéey kong yi kama kaxoli yi waxallam naa xamal nañ ko sanaata laboosin jëfakaayu kong ya lakum ñeel leen waxallama isa moo xam yoon ci yàlla isa ilma tibbi xam-xamu docteur kama xala taala wa yuallimu kitaaba xam nañ ko téere ba wal xikmata ak docteur waxallama alxadir ilma laduni kama qaala waxallamnaahu min ladunaa ilman ah وعلم النبي عليه الصلاه والسلام القران وقال محمد القران واسرى للالوهيه كما قال تعالى وعلمك خملنا يلا ما لو خمني لم تكن كوان تعلم دي خمكو ما خملنا الانسان دوم ادم البيان بيان القران جوج مكو خمل لك جان لا لان لا نان لا كان لا لو تخمو تدي القران بل ما سمي القران قرانا لو تخمو تدي القران القران من فو مو ماخذ ني كو جيري من قولين قرات دجلنا الماء اندخما في الحوض تمبالكما ci loxo boobu la jóge di duy di tànq di ca sotti wala boog jumaat fiha wa xaraati naaqatu labanaa sa daraay wala boog fekkee ni yaa ngi rat di joor boo nee curr ci rattukaay bi tuuti meew génn nga jooxati ni curr mu dem ci nu mu tuddati ci giir gi nga neeti nii mu ni curr dem ci giir gi nga neeti nii joox mu ni curr dem ci giir ga luxa boobu nga xam ni cur yooyu naan cur ndànk naag ci giir gi ba ca kanam nga joxati mu ni ci giir gi nga joxati mu ni cur ci giir gi ci luxa boobu lañ ko jëlee lu tax nag lu tax leennoo jumiat fihi alqisasu wal axbaaru wal awaamiru wal nawaahi wal waadu wal waidu wa xeyru dalik cur bu nekk ak lëfam alquran dafa boole qisa yëpp ak solo yëpp ak yàlla digal yëpp ak yi tere yëpp ak takku yëpp ak dëxal yëpp ñu ni waaw alquran boobule ndax alquran rek la am ci tur am am na yeneen tur mu naa kay wa ma asmaahu alquranu bu la neexee nga ne alquranu bu la neexee nga di furqaanu bu la neexee quranu furqaanu tanzil huda nooru kitaabu kalaamu zikru bayaanu tibyaanu mawizatu shifaau rahmatu xaqu mubiinu haadi azimu azizu xakimu karimu dama ni tënk sa baaraan quraanu du benn furqaanu ñaataangoog tanzil huda nooru kitaabu kalaamu zikru bayaanu tibyaan mawidatu shifaau rahmatu حق مبين هادي عظيم عزيز حكيم كريم قال القرآن يتر الأرض واو ولماذا أنزل القرآن على سبع لغات دون أكثر لتع القرآن نواتك جدون نار اللغة تواتينك جدون نار تواتينك جفك ما الحكمة في ذلك ها الله تعالى قيد الله تعالى بهذا العدد أصنافا من المخلوقات لأن السماوات سبعة والأراضين سبعة والبحار سبعة والأيام سبعة والليالي سبع وأطوار الإنسان سبعة asamaan جرونيال juróom جرونيال جيجي جرونيال فني جرونيال ñaar juróom-ñaar la jamono doomu aadama juróom-ñaar la wala xalqal insaana min sulaalatin min tiilin wa jawaarixoo ay cëyam sabatun juróom-ñaar la wa sujuuduhu ala sabati adaayin loolu wala alquran ñu wàcce ko ci juróom-ñaari loxo yooyu le aha da nga day wa sabatuhu wa sujuuduhu ala sabati adaayin kama qala alayhi salaatu wa salaam umirtu an asjuda ala sabati adaayin وطوافه سبعة أشراف وحضانته سبعة وذرجات النخيل سبعة وباب النار سبعة وأصناف الملائكة سبعة كل سنة بالزيف هي مار الدنيا سبعة سبعة أيام من أيام الآخرة لو لم القرآن يدفق جرم نار جنج السماوات سبعة أرضينا سبعة والبحار سبعة والأيام سبعة والليالي سبع وأحراف الإنسان سبعة وجوارحه سبعة وسجوده على سبعة أعضاء آه وطوافه سبعة أشواط وحضانته سبعة ودرجات النخيل سبعة وباب النار سبعة وأصلاف الملائكة سبعة كل سماء بسنف إمارة الدنيا سبعة آه آه آه من هناك ألف منها ألف منها أمر وألف منها نهي وألف منها وعد وألف منها وعيد وألف منها قصر أخبار وألف عبر وأمثال وخمسمائة أحكام ومائة تسبيح ودعاء وستون وستون ناسخ منسوخ القرآن أبن الجني ci digle am na junni ci tere am na junni ci tëkku am na junni ci dëxal am na junni ci xisar ak solo am na junni ci waare ak lépp am na juróomi téeméeri atte ak téeméeri sabaa da nga sama kàddu ak juróom benn fukk ak juróom benn ci laay sax man soo waaw alquran moomu le mu ne ko iqra na nga jàng bismi rabbika waaye iqra moomu le du yàlla wàcc iqra la lan la ca teg مدما اقرا باسم ربك مون ديكا واتي بوم تا تك اقرا باسم ربك مون يالا ديكا واتي كون فالا جي تك سما نو والقلم سما يا المزمل سمو المدثر سمو تبر يدا بالله بد سمو ذي الشمس كويرات سما سبع ربك الاعلى سمو ليل اذا يخشى سمو والفجر سمو والضحى سمو لم نشرح سمو والعصر ثم والعاديات ثم إن أعطيناك الكوثر ثم ليكم التكاثر ثم أرأيت ثم قل الكافرون ثم الفيل ثم قل أحد ثم والنجم ثم عبث ثم القدرة ثم والشمس وضحاها ثم البروج ثم التين ثم الياس قريش ثم القارعة ثم القيابة ثم الهمزة ثم المرسلات ثم القاف ثم البلد ثم الطارق ثم طيب الساعة ثم الصاد ثم الأعراف ثم الجن ثم ياسين ثم الفرقان ثم فاطر ثم مريم ثم طه ثم الواقعة ثم الشعراء ثم suma nëmli suma alxasal suma bani saaya suma yoonus ثم هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم الصافات ثم لقمان ثم السبعي ثم الزمر ثم المؤمن ثم حين الانتقام ثم عين الزجة ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاسية ثم الأحقاب ثم الذاريات ثم الغاشية ثم الكهف ثم النحل ثم النوح ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم المؤمنون ثم تنزيل سجدة ثم الطور ثم الملك ثم الحاقة ثم سال السائل ثم عمير سائلون ثم النازعات من سمع فطر في زبار شقة suma ruum suma ankaboot suma li mu tafifiin aha yii la yàlla wàcce noonu la ko toftalee ca li mu toftale ci medina nag أول ما نزل بها البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم العذاب ثم الممتحنة ثم النساء ثم درجة الأرض ثم الحديد ثم صوت محمد ثم الرعد ثم الرحمن ثم أتى الإنسان ثم الطارق ثم لم يكن ثم الحشر ثم الفلق ثم النافي ثم جاء نصر الله ثم الفتح ثم النور ثم الحج ثم النافقون ثم المجادلة ثم الحجر ثم التحريم ثم الصف ثم الجمعة ثم التغابر ثم الفتح ثم التوبة ثم المائدة ميم مجيخ yii la wàcc nii la ko tofale ca Makka yii la wàcc nii la ko tofale ci Muhammad moo tax Xaaji Malik ni wa aaba murtaidan loo teg ma dem wa aaba murtaidan mimma के में بلغ الاخرج الإطام على سلام دائما وآب مرتعدا مما يرى فزعا وقائلا زملوني ترفع غممي خديجة سكنت بالقلب قائلة لم يخزك الله في الدارين لا تكني جعل لي ورقة تحكي ما رواه لها وقال ناموس ناموس موسى ذات فابتزني يا ليتني كنت فيها سالما جزعا وكنت حيا للإخراج الإضمي وآبت جلنا محمد مرتعدا mbiroom lakkam daa ji فزعا ba تيب مما نجر لا لا يرى جسمك ngir وقائلا la yaraa gis na naan zammiloo nii dëkkus leen ma bu ko defee tarfaoo ñu yëkkati ko ni sama tiit ndeysaan bi mu jóge ci xaaru xiraa jibril ñëw mboq ko mu jóge ci xaaru xiraa ñëw nag di lox ni waaye fàng leen ma waay ma waay dëkkus leen ma waay xadija dun si dinaa xadija sakana dalal na mu bil qalbi ci xolub muhammad xaailati mbirom di ko mbirom nekk ndaaj wax ko naan ko lam yuxzika du la soloxal mukk laahu yàlla fi daarayni ci ñaari kër yi te mooy àddina alaxira la takimul dàq jaat dikk na nag moom xarja fi warxata ñëw warxatu nu noofal tax kii mbir mu muy nettali ko maa la nga xam ne rawaaw solo na ko muhammad lahaa ñel xadija wa xaalim wax ko moom na waraxa ni ko daakalo daal naamuusu muusa mooy sekkalab yonte yàlla muusa ba fobta si mii na nga muñ waaye li ma ci naqari yaalee te nii yelante koo nag man kuntu ma nekk fii haa ci diirug nubuwa ga سالما دي اجي دغر جدي ان ما دي لون دغر كن وكنت من الكتم حيا دي اجي دند هذا اخراجي فاس جينيغا للاضم غير نينا غير نوني دوت قل كما نزال روح الامين على رسلنا اركبوا كي اوذى بما المؤمنين بآيات من الحكم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسبيم هذه مريم خذ حد ما نزل الروح الأمين على رسل أرتب كي أجزى بنظمهم يبن لآدم نون ثم تاف حين ثم موسى لإبراهيم عد بني دال لإدريس عيسى حاز يا عددا وللحبيب كد ألفا فلاتين ما زال ياتي له جبريل حج يجي من السنين بآيات من الحكيم حاجب بعد نينا خذنا نجب عبد ما لم لنا خمني نزل واتشنا الروح جبريل al aminu ka di ku ñu wóolu ala rusul ci yonent yi xaaji malik nee na urati uratibu danaa ko tos le man mawdo kay uzza ngir fayeefama bi nazmi yi ci nose seen nga ne ko moo laaji malik jibril ñaata yoon la wàcc ci yonent yi ak kenn ku nekk lan la wàcc ci moom mu ne yebun li aadama noonun summa taa fa li nuuxin summa muusa li ibrahima addu ba mi li aadama ñeel na aadama yëbun fukk ak ñaar wali nuuxin ñeel na ñoom teela noox nuunun juróom fukki yoon wali muusa ñeel na ñoom teela muusa taawun ñaari téeméer wali ibrahima ñeel na ibrahima addu ba mi fukk ak ñaar muy lëffun wa nashrun murattabun li nuuxin nuunun wali muusa taawun mu ne yëbun li aadama nuunun ثم تا فلنوح ثم موسى لإبراهيم عبد بني لآدم يب ولنوح نون ولموسى تاء ولإبراهيم عبد بني لف ونشر مرتب لف ونشر مرتب لآدم يب ولنوح نون ولموسى تاء ولإبراهيم عبد بني من منيب لآدم نون ثم تا فلنوح ثم موسى لإبراهيم عبد بني daalun li idrisa daalun ñeenti yoon nag li idrisa wàcc ko yonent yàlla idrisa isa isa yonent yàlla isa moom aasa làq na yaa an fukki yoon adadin ci lim sa teg walil habibi ñeel na soppe ba tabay muhammad këdun ñaar fukk ak ñeent alfan ci junni jibril wàcc na ci muhammad ñaar fukki junni ak ñeent ah, xanaa daaw ko ñaar fukki junni ak ñeent xaajimaay nee na falaa tahimi bul gëlëm falaa tahimi bul def dele maa zaala mosolo lañ nag yaati di dikkal jibril jibril loo ñeel muhammad addu ya jii lii mu dana dikk addu ya jii lii mu dana dikk muy ya jii ñaar fukk ak ñett <laughs> mi nag si niina nag ci at di ayaatin ci kéemaan yoo xani min al hikam mi ngi tugga ci yàlla neena nak nag min baadihi naazilun من بعده نازل ياء فيرفع ياء من بعده نازل ياء فيرفع ياء في رفع ياء قل فساد الخلق والقحوم صلاتهم على النبي وعليهم أجمعين السلام ربنا دائما آمن وكل الله كملا الرحمن آه، لا تسأل ما عز من حكم على النبي وعليهم أجمعين السلام وهي حقا بعد ما افترت ميما وكان رضا في غاية الوكام على النبي أيوة، دائما من بعده نازل يا أن فيرفع يا في رفعها قل فساد الخلق والقحم يمن وحب ورحم معدل وحياء صبر وزهد سقى القرآن بسلم رؤيا خطاب كذا الإلقاء من ملك وهي مراتب الوحي لا تت ولا تهمي وكلها حاء في رسول الله تم ملال رحمن لا تسأل ما حاز من حكمة حاجة بعدين نازل aji wàcc جبريل يا أن فكيون min baadihi ci gannaaw demuk muhammad alaaji malik ko bind mani xaaji malik nee na waxul waxam de waxu yonent bi la wax ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na yaa jibril ma dema ana jibril alayhi salaam la sa nabi